bu matul fukki at ci lay tollool te booba ba léegi ñoom ñaar dajawul le 2 juin la foo le 2 juin 2013 la ñu bëre woon ñoom ñaar la 11 ans 2 juin 2013 Balla Gaye 2 ci la daanoon Tapha Tine yéen a ngi fàtte ne Daara Baara dafa tëj waru sax am Liss Ndiago ñuy yëpp Liss Ndiago kooku laa 30 secondes la ñu waroon def waaye loolu mais naa mi ndam ndam la rek quoi gën a defaru waaye ñun xam nañu Pokola moo mën Liss Ndiago ñetti Liss Pokola moo leen mën mais gën a entraîné rek gën a defaruwaat tamit mais buñ sañoon bu demee nii quoi buñ sañoon bu demee nii mooy loolu. la prochaine étape semaine prochaine ma ngay amee ca Mbour Malick fa la la waaw ca buur la ñu Bigirado Digão, Lavada Manifara, Fils de Douglas. Dublessa, Para Paragaidão. Kooku moo daan Boy Niang moo daan Yékini Junior ñaari yoon moo daan Zoss moo daan Gouye Gui moo daan Bombardier moo daan Elton moo daan Dieng daan Abdou Diouf daan Boy Sèye daan El Hadj Diouf daan Balla Gaye oh. daan Sa Cadior daan Malaw Seras Tapha Tine Yes. Les yeux dans les yeux. Nagay lapante. Kafartin. Talagayte. Allalalo. Takinan. Malik. Malik kay taxawal ni. Ci bëtu day faral di. waa jàpp ci jàpp yi ñu ngi sant yàlla baax président Bira lii c'est la lii c'est le sport discipline bi gën a populaire au Sénégal Malick Thiandou waaw Tapha ngi sa wet waaw waaw Balla ngi sama wet laaj bu njëkk bi laaj ko Tapha Tine Baye Ndiaye ngi nii taxaw adduna yëpp ngi nii xool ñu xool ñoom ñaar seen bis mu war a doon bis bu rëy lan la Tapha ci bis bismillah Tapha dafa jàkkaarloo woon ak Balla Gaye il y a mu ne woon Balla di nga ci takk ni Balla Gaye di nga ci biir bat ni ko ay donkaar keroog ba ñu ki nga xam ne mooy Balla Gaye jël ndam ci moom 11 ans après ñu war a nga dem Abidjan nekk ci loxo Eric Fall say entraîneur wax nañu wax nga waaye tey Balla Gaye a ngi nii yaa asalaamaaleykum maa ngi maa ngi nuyu képp ku nekk ci stade bi di nuyu coach si David accompagné ma depuis Abidjan ba fii di nuyu aussi papa ak El ak staffu bool mbooloo yëpp di nuyu monsieur Irek Faw aussi nga xam ne ci ay loxoom laa ne woon di nuyu waa Abidjan yëpp di nuyu képp ku ci stade bi de. Gueye di nuyu Père Bagaye Sisi Ndiaye Baye Ndiaye nga teg foofu sa baaram ma dama doon noyoo voilà maa ngi xaar. léegi nag dem nga nekk nga ci loxo RIP nekk ci loxo entraîneur yu kare ñu gis la nga dugg ci biir ndox ñu gis la ngay entraîné lu metti nga am loo wax jëmale ko ci Balla Gaye tey Balla ngi nii yaa ngi nii jàkkaarloo nga ak moom.

nii dañoo bëgg nga wax ak moom lu mel ni nit yi parce li nga wax ci suuf laa bëgg mu jëm ca kaw. maa ngi doon wax rek foofu laa nekk ba léegi kii samay wax ak moom du bëri liggéey naa liggéey naa li mooy waxaat mu ngi ñëw moom mu la suuf si dinañ ci xam dara incha allahu rabi. ay challenge de kaay. mbokk yi dégg nañu kàddu yi. Moussa Fatick Balla Gaye Moussa ay supporter bëgg a dégg ndax dina nu gis Balla Gaye ba njëkkoon a ak Tapha Tine wala du nu gis boobu ndax Balla dina dugal loxoom mu dugaloon loxoom ba am ndam wala déet. jërëjëf si taal bi bisimilah rahmaani rahiim aw ma yàlla di leen sëriñ Salah Salaam sant suma sëriñ sëriñ bés bi ñaan yàlla jàmm ci réew mi di félicité ñi nga xam ne jot nañoo bëre di nuyu amateur yëpp di nuyu képp nga xam ne fi ay supporteru Balla Gaye numéro 2 di nuyu Baye Ndiaye mi tëgg naa ma ci di nuyu di nuyu ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñoo nekk ba ca Paris ku ci mel ni Moussa ak Vince waa MCS ma leen nuyu baax a baax di nuyu suma adversaire ak Atil di leen wax euh, vraiment euh, li ñu fi world contract ci li ma nekk rek laa nekk Tapha Tine laa amal combat di ñaan yàlla yàlla man dam ci bopp nit ñi dañoo bëgg a xam say supporter nee nanu est-ce que dinañu gis Balla Gaye ba jëkkoon a bëri ak Tapha Tine wala déet parce que moom nee nanu dañoo nam victoire incha allah bu neexee yàlla man samay supporter xam nañ ma man caaxaanu ma bis bi ndax xam naa fu toll ci ma kii bu waxee ne fu mu taxaw la taxaw ba léegi mooy dama koy duma daan parce que fu mu taxaw la taxaw parce que bii paas dama koy duma daan kon dama koy dama duma daan dara mënu dox sama diggante ak ma duma ko daan walla mu Tapha Tine duma la daan la lan la Balla Gaye wax go angale da ngay wax olof nga wax ko ngay wala bis mas nigga set up man set up man my bro set up set up man okay xam nga wax boo ko déglu da ngay nopp anyway moom moom mi nga mel naturel ñëpp xam nañ ko ko eh ni lay mel de amul wax de yow yow yow yow amul yow xam nga booy wax ngay yow yow yow ba kañ ginnaaw moo doon ñaan yow yow Idi Idi Amady Idi nga saral nga tollu moo ci yam nga wut ay ndimbal moo yam affaire bi amul yërëm tollu. waaw doo tuuma daan na mu ngi taxaw mu yaay kenn tuuma kenn. même maa ngi taxaw yow. fii mais maa la fii yaa ngi duma nekk mais fii nag maa la duma. dégg nga fii la duma maa la duma. yow maa la duma. X. Mesela şöyle dönün. Ama ama ama tekrar. Herkes senin senin andaki eser şöyle dönün. You do nothing. You do nothing, bro. That's what it is.